gouverneur ñoo ngi sant yàlla te julli ci yonent bi alayhi di am nag mbégte mbégte mu sori lool ci suñuy xol ndax am na yaakaar bu baax ni tey salle bi ku fi ñëw di nga xam ni lépp yokk na kon loolu ñu sant ci yàlla suñu boroom ñu ñëw fi nag monsieur le gouverneur ci turu Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni mooy jëw jëwriñu Cheikh Mouhamadou amin Bara mu boole ñu ak délégation bu mag waaye itam ñu ànd ak yeneen ñaari délégation donte ci ñu lañu bokk délégation bu njëkk bi mooy xam nga ni Cheikh Mouhamadul Amine bi ko seexul xaddim di ko yebal mu ñëw Mbàkke Kajoor daf ko yebal ci ay mbokkam ci maam Amar Fall Mbàkke bi nga xam ni mooy waajuru sëriñ Cheikh Kajoor mii di imaamu Mbàkke Kajoor nga xam ni seexul xaddim bi mu jógee Mbàkke Kajoor di ñibbi Tuubaa dafa dem Jolof jël fa rakki Maam Mor Anta muy sëñ Mbàkke Ibra bi nga xam ni mooy sëñ Mbàkke Kajoor ak njabootam nekk fa mu ñëw jox ko daara ji nga xam ni moo war a Anta Sali moo ko sancoon ginnaaw bu mu jógee ñooro ànd ak Lat ñibbisi fi ci Kajoor bi Lat Joor nekkee kër Amadou Yàlla indaale moo war a Anta Sali mu xam ni ab sëriñ ak buur mënuñoo bokk am pénc ci la ko laaj ni ko fokk nga wutal ma foo xam ni dama fay mën a jàngale bi mu ñëwee ci suuf su Mbàkke Kajoor sax jëkkuta dal Mbàkke Kajoor waaye fi ñuy wax ngébbal la ko jëkk a yóbbu waaye sëriñ bi bi mu xoolee foofu xam ni am na ay njeexeetal yu fa nekk mooy dafa am ñu fa dëkkoon mu wóor ko nit ñi dañoo dem rek waaye danañ dellu si mun ko suma seen wutal ma faneen en 1880 en 1880 nag ci la ko wutale Mbàkke Kajoor boobu Mamadou Anta Sali nekk fa di jàngale di yare daan fa àttale Lat Joor mu am fa ñetti at génn àddina foofu ci Mbàkke Kajoor sëriñ bi yóbbu ko deqale ba mu fa nekkee lu dul ci juróom-ñaari at war a ñibbi Mbàkke Bawol ci la jëlee suñu maam ju sell jooju suñu Mbàkke Ibra indi ko ngir mu doon daara ji nga xam ni góor yàlla gu ne jaar nga fa mën naa wax sëñ jaamal sëñ Pir sëñ Ilimaan Saaxo ak ñeneen ñoo xam ne sax ay mbokki xaadir lañ jaar nañ ci daara jooju jàng fa kooku nga xam ne nag mooy xalifa sëñ Mbàkke Ibra sëñ Mbàkke Kajoor di sëriñ Moustapha mu xam ni bés bi bisam na ndax mooy kilifa gi mu jël sëriñ Cheikh Kajoor mii boole ko njabootu boppam muy sëñ Jili Mbàkke Gelo Ngel sëriñ Mbàkke Ngaamu sëñ Jili Mbàkke Parcelles Touba Parcelles sëñ Abibu Mbàkke sëñ Abdou Xudoos Mbàkke sëriñ Abdou Aziz Mbàkke ak sëriñ Abibu Mbàkke Kajoor ñoom ñëpp sëriñ Moustapha ni leen dem leen ngeen ànd ak njabootu Cheikh Mawlène Bara Serigne Moustapha ñi nga xam ne ñoom lañu dénk màggal gi ngeen ànd ko ñoom ba mu jeex tàkk loolu ànd bu rafet boobu moo amoon seen diggante ak Cheikhul Khadim moo amoon diggante Cheikh Mouhamadou Bara ak maam Amar Fan Mbacké loolu moo am seen diggante ba tey kon ñu sant leen gërëm leen ci mbégte moomu sëñ Cheikh Kadior sëñ Moustapha mi ngi sant bu baax ki nga xam ne itam moom la bokkaloon dëkk ci Mbacké Kadior muy ab xaritam lool di maam Cheikh Awa Balla xaritoo gu ñu xaritoo woon moo tax. mu jël Cheikh Sidi Mokhtar tuddee ko maam Cheikh Awa Balla jox ko ko alaaji maam Thierno mi nga xam ni mooy xalifa maam Cheikh Awa Balla ni moom bis bi na ma ko daan taxawoo bi fi Cheikh Sidi Mokhtar nekkee noonu rek la koy taxawoo moo tax mu jël sëñ Lamine mais may tooñ naa ko wàllu yu Kajoor daal di ko yebal moom it ak une ni ko na ñëw ànd ak ñun ba maa ngi jàll kon nag mbégte moomu ñëpp ràññ nañ ko kon ñu ngi sant bu baax di leen gërëm xam ne maam sëñ maam Thierno moom bis bi sëñ Lamine moo ko moom. ci biir loolu nag mbooloo mi nga xam ni moo bàyyi ko ci sëñ Moustapha monsieur le gouverneur xam naa xat na lool waaye dañoo am loo xam ni wax dëgg yàlla xol dafa sedd ndax Cheikh Sidi Makhtar bu fi nekkee ñëpp daan ñëw mu won ñu ginnaaw depuis daaw mbooloo mi gën a toll nii fokk ñu leeral la ñi nga xam ne ñoo fi ñëw ki ci jiitu mooy Serigne Cheikh Mbacke Ahmadou Mbacke. mi nga xam ni doomu sëñ Sidi Ndar la mi ngi nii toog sëriñ Xaadim Moussaïn di xalifa sëñ Moussaïn Baara sëriñ Modou Baara di së doomu sëñ Xaadim Awa Ba sëriñ Abdou Assis Xaadim Modou Baara sëriñ Abdou Karim Xaadim Modou Baara sëriñ Sidi Mbacke mais nga xam ni sama mag la waaye tuuti la ma magee di premier adjoint au maire bu Touba Mosquée sëriñ Abdou Khadim moom itam di sama mag. mu sëñ Basiru Xujja moom itam ñëw na teew fi sëriñ Abdourahim mu sëñ Ahmed Baara sëriñ Modou Baara Amar Fall sëriñ Abdou Aziz Ahmed Baara sëriñ Abdou Aziz mu sëñ Basiru Xujja sëñ Basiru Mbàkke mu sëñ Ahmed Baara sëñ Malick Mbàkke mu sëriñ Ahmed Baara sëriñ Xaadim Mbàkke mu Seex Sidi Maxtar ànd ak sëñ Aline Diop sëriñ Moustapha Mbàkke Abibu ak suñu mag ju baax je soxna Ami Mbàkke mu sëriñ Abdou Aziz Baara alhaji ahmadou fall nay di suñu ndiyaay mu jël kàddu léegi alhaji daam Diop mi nga xam ni moo yore kàddu njabootu moo leen Bara fii ci réseau de Louga alhaji lahat jóob di jarbaatu sëriñ bi sëriñ abdou Assis mu sëriñ cheikh Thioro di maire Mbacke Kajoor alhaji ibra Ndiaye moom it bàyyi bàyyi ko Mbacke Kajoor alhaji moustapha ndong sëriñ murji ñang bàyyi ko Touba ngumba ngeewul sëriñ xaadim Mbacke mu sëriñ Ahmed Bara ak monsieur Tine mi nga xam ne dañuy jàppale ci liggéey bi Ibra Sall Touba sëñ Mouhamadou Li Diom mooy bàyyi ko Mbour ak Badou Sey ak ñi nga xam ni ñëpp ay taalib lañ ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi monsieur le gouverneur. sëriñ Xaadim Mbacke Cheikh Mat sëñ Cheikh Matley ak sëñ Modou Aïssa wax naa ko léegi ak sëñ Maam Baara Mbacke mu sëñ Moustapha Abdou Aziz kon monsieur le gouverneur maa ngi ànd ak ñoom ñooñu bàyyi ko ci kilifa se kilifa yu sedd yi kilifa yu sell yi. di leen indil nuyoo Cheikh Moustapha di leen nuyu di nuyu gouverneur adjoint di nuyu préfet ak sous-préfet di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi représenté euh, capitaine euh, Diouf gendarmerie national di nuyu waa sapeur pompier waa santé protection protection civile service d'hygiène waa élevage Sénélec Sonatel hydraulique Eaux et Forêts AGEROUTE ONAS sécurité alimentaire la postu environnement ak ñi nga xam ne ñoo fi représenté conseil départemental bi ñoo ngi am mbégte ci li nga xam ni moo ñu fi dajale te muy màggalu jumaada ula ñu ciy fàttaliku bis bi nga xam ne a cheikh Mouhamadoul Amine ibnu xaadimu rasul mi nga xam ni mooy ñetteel doomu cheikhul xadim moo ci gane woon àddina muy bis boo xam ni cheikh Saliou Mbacké moo waxoon Cheikh Sidi Mokhtar ni ko nañu koy fàttaliku ndax bu jëkkoon ñi ngi daan fàttaliku bis bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara génnee àddina mu ni bis boobu nga xam ne ci feeñ jamono soxna maam Ami Mbàkke bintu sëñ Modou Aïssa Mbàkke mi ngi fi ñu ngi koy siyaar bu baax bis boobu ñi jëkkoon a sëriñ bi Cheikhul Khadim da leen woo ba muy ñëw ni leen li ngeen doon wut ci seen boroom lépp gan gi ñëw andil na leen ko kon kaay leen ngeen yeewee ko Cheikh wax ni bis boobu bisu taw féex la bisu faj aajo la bisu ndimbal la kon dee leen ko fàttaliku jox ci ndigal Cheikh Sidi Maxtaar moo tax mu koy fàttaliku. barab bi ñu koy fàttalikoo muy Mbàkke Kajoor fi la Cheikhul Xadim yeesalawaat sunna Seydina Muhammadin Ali salaatu wasalaam ndax fi la waxe woon ni shaafahani rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallama bi xawlihi rabbi asaabka bi himmatin wala rabbihim darsi faqat kon monsieur le gouverneur suñuy waajur dañ fay nekkoon doon wootee màggal gi ba tey mu agsi ci ki nga xam ni mooy sët bu jëkk ci cheikh Mouhamadou Lamine Bara muy sëñ Moustapha muy wootee màggal gi ñu am njort bu rafet bu baax nag ak cant ak i ngërëm jëme ko ci seenu wàll yéen autorités yi nga xam ni yéen lañ nekkal fii ci région de Louga ak département de Kébémer ba ci arrondissement Darou Mouhty di leen sant di leen gërëm ndax Cheikh Sidi Makhtar ci ak nekkam nii rek ngeen ko daan taxawoo kon suñu dëddoo ngeen jël matukaay yoo xam ni moo gën a mat yi ngeen daan jël ci ak nekkam dañ leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ñaanal cant yooyu dem ba ca kaw seen i kilifa ministre de l'intérieur gouvernement bi yëpp premier ministre ba ci président Macky Sall ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaan yàlla defal ko ndimbal ak tawféex ba yéene ji nga xam ne yéene na ko ci senegal suñu borom dimbali ko ba mën ko àggale bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ndax Cheikh Mouhamadou Bara moo ñu boole ci Cheikhul Khadim yàlla dogal ñu nekk ñun ñi ñëpp nga xam ni am na ñu jël kàddu am na ñu ko jëlul ñu ànd Cheikh Moustapha dénk ñu organisation bi ñuy ànd di ko saytu te suñ masaa ñëw fii ba wax fi li ciy wax tënk ko dara musu cee manqué ci seen wet kon ñi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm am nañ yàqin bu wér ni magal gi nam daan demee rek lay demee incha allahu kon ñi ngi sant bu baax di gërëm sëñ Moustapha nag di sant njaboot gi ndax ndax lii rekk la bëggoon saa su wootee ñëpp ñëw ànd ak moom ci ni mu ko bëggee kon mi ngi leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla ànd bi yàgg yaakaar naa salle bi itam miin na lool sama kàddu ci Cheikh Moustapha ndax sëriñ bi moo ñu ko tànnaloon ni mooy taawu kër gi mu yor jikkoy sëriñ bi yor melokaanu sëriñ bi yor xàmmeek sëriñ bi yor muñu sëriñ bi yor lewataayu sëriñ bi uuf ñëpp su ko neexoon ñëw toog fii waaye dara jeeg jépp da ko bàyyi rakk yi kon ñu taxawu ko taxaw ma sëkk kon mi leen sant bu baax di leen gërëm di wax ni yëf yi moom seen yëf la lam wax keroog bi mu wootee ni fii ma toog ay at rek moo ma fi teg kon at yooyu jógul kenn ci yéen kon yëf yi seen yëf la te jàpp ngeen ci yëg ngeen ko kon ñu leen sant bu baax di leen gërëm moom nag la ma doon wax rek muy nit koo xam ni ku oyofal boppam la du nit ku oyof nag wàcce boppam oyofal boppam waaye li ñuy wax rek oyofaay boobu nga xam ni da koo oyofal boppam buñ ko ci fekki buñ ko ci fekki ndax day wax ni dañ ko bokk may wax ni kilifteef kenn du ko bokk kilifteef kenn du ko bokk daa wàcce boppam oyof waaye Cheikh Salim Mbacke daana wax ni oyofay gii nga xam ne dama ko oyofal sama wàcc sama bopp bëgguma kenn dimbali ma ci ku ko Cheikh Maodo Mountakha ni mu mel ni mu oyofale boppam xam ni kilifa loolu mooy li ko war wàcce boppam oyof bu maasee ñëpp waaye oyofaay boobu waruñu ko cee dimbali ndax kilifa baat rek la am defal nga def bàyyil nga bàyyi te loolu moom ngeen ànd ak moom kon ñu ngi sant bu baax monsieur le gouverneur di leen gërëm ci taxawaay bi xam naa xat na moo tax bëgguñoo guddal waaye ñu may ma rek ma sant presse bi nga xam ne ñoo ànd ak ñun di ñu gunge ci màgg gi ni ko sa préfet waxee ndax su tàmbalee ba keroog muy jeex nii la ñuy ànd ak ñun di ñu jàpp ci liggéey bi. te amu ci kenn koo xam ne am na loo xam ne teg nañu ko waa ñu koy fayeeku muy ñi nga xam ne ay télévision lañ muy rajo yi muy presse écrite muy sit internet yi ñi ngi sant bu baax di leen gërëm sëñ Dame Diop yàgg Alaaji Madiye Fall moom dañu leen bàyyi sëñ Baara li taxoon sëñ bi tànn leen yéen a ngi ci kon ñu leen sant baax ci taxawaay bi di gërëm ñu may ma sant koo xam ne kenn la ci ñun muy Alaaji jaajal ndax da doon ànd ak suñu bàyyi di liggéey ba gisatul suñuy bàyyi muy ànd ak ñu ci liggéey boobu te dem na ba tëlee waaye nangu wut kon alaaj jaaja ñu ngi lay sant bu wax di la gërëm di sant alaaj mbay alaaj Ablaye Mbaye Peex dégg naa ko fi léegi ndax préfet mi gouverneur mi ngi ñuy wax CRD la ci teg kon yëpp ñu ngi lay sant bu bi jërë ngeen jëf waaleykum salaam. ñu ngi sant yàlla bu baax ci bi mu ñu boolee ci événement bu mel nii ci ndigalu euh, président de la république son excellence Macky Sall ak gouvernement am ku nekk xam na nu mu mel ci kilifa diine ak jéego yi muy dox. ci jëmale ko ci diine ji a ah, ba tax na màggal gi dafa nekk màggal gu nga xam ne màggal gu ñu fonk la mais ren nag dafa am euh, lu ci nekk lu nga xam ne baax na pour ñu fësal ko màggal la gu nga xam ne mën nañ wax ne mooy màggal gi njëkk gannaaw bi ñu sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke dëddoo parce que daaw comme ni ko sëriñ Jaaja Mbay rappelé léegi dafa coïncidence bi sax dafa doy waar daaw xam nga le 10 janvier lañ programmé woon màggal gi lañ programmé woon CRD xew-xew bi am ñu ñu fomm ko ba par la suite ñu del si waat rapidement euh, def ko mais dañ ko defoon d'une manière très sobre mais terewut résultat yi wax dëgg yàlla yàlla dimbali ñu ba mu weesu suñ njort di nga ren man janvier bi ma koy pare ma xaw ma ne sax dama tànn 10 janvier rek ndekete te le c'est le même 10 janvier donc dafa mel 10 janvier bu ñu famoon noonu moo ñëwaat tey doy na waar moo dellusiwaat donc màggal la gu nga xam ne un bi ñu sëriñ bi dëddoo ci lañ ko or ci CRD bi ci la ñëwaat CRD la aussi bu nga xam ne màggal aussi bu nga xam ne dafay am de 3 fév le quatre février te le 4 février presque dafay dafay tombi ci début campagne électorale bi nga xam ne ñu ngi jëm ci élection président la république te ku nekk xam ne élection dañ ci soxla ñaan dañ ci soxla jàmm parce ci ñaan yooyu bu ko yàlla nangoo mu nekk jàmm ci lañ mën a organiser élection yu mucc ayib donc occasion la màggal gi soobee yàlla ñu tàllalaat suñuy loxo pour ñu def ci ay ñaan pour que élection yooyu njublu si yàlla def ci jàmm ba ñu organiser ko ci jàmm donc événement bu mel noonu su amee ñun dañ ciy taxaw nuñ ci war a taxawee rawatina ren ci kaw li ma wax léegi liñ ci mën liñ ci taxawee nag mooy ci wàllu kaaraange. wax naa ko fi léegi nañ fexe ba renforcé kaaraange ngi waroon am ci biir dëkk ba lu jëmee ci euh, makkaanu xalif bi ak ñi ko wër mais ci biir dëkk bi ak surtout booy dukk dëkk bi booy dugg dëkk bi ak booy génn dëkk bi ba tax na préfet Kébémer confié naa ko loolu lépp mu saytu ko en rapport avec euh, commandant compagnie gendarmerie ak ñi ko wër en rapport avec sapeur pompier bu ko defee dinañ def plan de circulation xool auto yi nan lañuy ñuy duggee nan la ñuy génnee fan la ñuy gaaree ñu fexe aussi ba laissez-passer yooyu nga demandé nañ la ko jox ñu fexe ba aussi ñu am am ay badge ñu nga xam ne ñëpp dinañ leen xàmmee ku ci nekk fa nga war a dem nga mën fa dem te doo am benn difficulté sapeur pompier aussi ni ma ko waxee dinañ ñëw mais dinañ fexee aussi set ak setal ñu gën ko renforcer ci dëkk bi danañ fexe ba aussi làmp yi doy làmp yi doy loolu moom dama ko confier mairie mu ànd ceeg Senelec ba lépp luy làmp bu ñu war a remplacer ñu remplacer la lépp bépp poteau bu ñu war a remplacer ñu remplacer la li ci des mooy ay branchements sociaux demandé nañ liste bi bu ñu jotee list bi ñu jox ko Senelec bu Daaru Musi ñu traité ko équipe en permanence dana fa ñëw Senelec wax na ko léegi li ci des nag mooy extension réseau bi wax nga ko léegi je crois que loolu peut-être bu ñu ko mën réglé aussi léegi tout de suite dinañ bind directeur général bi ndox mi yàlla def na euh, président de la république tabaxoon na benn forage foofu forage bi PUDC moo ko réalisé forage bi pare na ba réceptionné nañ ko danañu fexe ba ñu ubbi ko ci fan yii di ñëw duñ xaar sax màggal gi ñëw dama doon woo léegi directeur PUDC mënuma ko jot nañ fexe ba forage bi ñu ubbi ko parce que nee nañ ma ndox mu neex la ñu ubbi ko en attendant lépp lu ñuy régler par la suite ci ay procédure ñu regle ko mais gannaaw réceptionné nañ ko mën nañu am autorisation ñu ubbi ko pour nit ñi di ci naanaale en attendant li ci des ay citerne la nañ fexe ba mu ñëw ak ay bâche à eau euh, Ageroute aussi liggéey bi ñu waroon def pour yaatal yoon yeeg yooyu bu soobee yàlla dinañ ko def mooy signaler rek am na benn piste bu ñu ci demandé piste boobu déjà PUDC jëloon na ko en compte au niveau donc de la phase 2 loolu daal sëriñ bi mooy ci gàttal li ñu fi wax di conte nag aussi di gërëm aussi engagement yi nga xam ne collectivités territoriales yi jël nañu parce que état buy liggéey aussi ci wetam toujours day solo collectivité territoriale décentralisation ak déconcentration mm, euh, bu bu fekkoon état yaram la dañu wax mooy ñaari tànk yi mooy ñaari tànk yi fu état di liggéeyee rek déconcentration fu muy liggéey rek dafay soxla décentralisation ci wetam moo tax sànq ma ne binduñ ko ci kayit yi mais dinaa leen jox kàddu ñoom itam ñu def seen engagement te seen engagement yi ni ñu ko déggee ah dal na xel dañ ñaan yàlla rek mu dimbale leen ba ni ñu ko engagé ñu defee ko muy commune Touba commune Mbacké Kadior ak conseil départemental bu Kébémer di leen bu baax a ah, sëriñ bi loolu daal ci gàttal moom laa ci bëggoon sànni di encore sàkkuwaat ñaan ñaan gi ñu jëmale ko ci senegal ñu jëmale ko ci senegal jëmale ko ci kii jiite senegal muy le président de la République bu amee jàmm ñu am jàmm ñu jëmale ko ci senegal aussi parce que Sénégal actuellement fi mu toll ñu jëm ci ay élections coow li bëri na mais buñ ci ñaanee yàlla mën na ci def jàmm ñu ñëpp ñu bokk ko ah euh, di ñaan aussi kii nga xam ne nii euh, mooy tey ci tey xalifu sëñ Baara mu sëriñ Moustapha ñu koy ñaanal moom itam daaw fii ñëwoon na fi ànd ak ñun lii mu def ici dal na sañ xel lii mu def nii doy nañu sëkk sëkk sëkk sëkk boo demee nga ne ko ñun aussi ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko suñu kanam may ko fan gudd wér gu yaram lii nga xam ne nii yan na ko mu téeñal ko ko ah ñu te li jàmm ak salaam rek la luy jëmale umma bi kanam luy jëmale Sénégal kanam ma ne ko ñu ngi ko koy ñaanal waaw loolu daal lañ bëggoon wax ah di joxe rendez-vous rek ah, bés ba mais nag may wax comité d'organisation bi comme ni ma amee habitude di ko wax tey la seen liggéey door di commencer tey bu ñu wax rek def nañ CRD saye saye saye déedéet liñ fii def ci CRD day bëri dafay bëri comité d'organisation ñoom ñoo ñu mën a dimbale pour que succès yooyu ñu doon am ñu amaat yu ko raw nga nga organiser leen bu baax lépp lu nga xam ne nii am nañ ko ci ay jafe-jafe bu ñu hésité bu ñu hésité même bu ñu ma mënul jot préfet ngi nii nañ ko ko wax sous préfet ngi nii nañ ko ko wax bu ñu leen ko waxee ñoom parfois mën nañ bañ soxla sax pour yeggale ma ko mën nañ ko régler wala suñ demee ba mu mënuñ ko régler buñ ma ko waxee ñun ñëpp ñu jéem ut solution mais daal à partir d'aujourd'hui samay numéro ñun suñuy numéro ñëpp am nañ one on est accessible à tout moment ñun amuñ droit tëj suñu portable bu ko defee buñ ci jokkoo ak ñun rek ñu topp ko ba ndam yi ñu ci doon am yàlla defalaat ñu ndam gu mel noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah amiin